ciy firndeel rek mooy suñu baara ñun de ginnaawam man bokk ginnaawam de jëm naa koo xam bari naa ci ay mbokk ay eh, bi ñuy dem Màkka ñi mu àndaloon bari na bàyyi dundu booy di mag yi ñooy dund fi ñu toog bi nga xamee ni moom natt na ni wërëntu la dellu Sénégal sëñ Baara la woo lan mbooloo mooy bari bari bari na ay sant yu bari yu fi nekk sëñ Baara la woo ñëw jox ko li mu dese woon ci xaalis jox ko ay bagages am ne ko wóor kii photo bu ñëw photo ñu ndax dama si loolu sëñ Baara la ko bari woon na sant ya bari woon waaye sëñ Baara la taamu ne ko yow mii kat laay jox samay bagages yow laay jox li ma dese ci xaalis. photo bi ma yóbbaale ko sama njaboot du ma dellu Sénégal fii lay des Màkka lay des mooy Ibrahima Ndour. nga taal bànq mais lii la seen wàllu kon sëñ Baara yàlla na ko xam doon. dëgg yàlla diggante bi soxna Ndour a ziare. waaw. mais léegi nag maa ngi ko jël di ko tàggu. ñoom ñoo dégg ñu ñu ko ñu dem bay gi ak sa papa di Makka dafa ne ko soo demee na nga waaj di nga yow yaay bokk nga ci ñi ngay dund sam papa nee ñëw toog toog toog ba ci yàgg génn mburu bal mu tëj am lu mu bind ab leetal lam ca nag moo ko xam nee sëñ Bara Sylla la ko njëkk a teg téléphone bi mu demee sam papa nee bi mu ñëwee di tëdd su mékwu dafa ñëw tëdd ba dégg oto bi droite mu daal di jóg mu ànd ak moom yóbbu ko ba aéroport jël lettre bi jox ne ko di nga dem di ci ci sëñ Baara la ko jël ci sama ànd. wax yàlla bi mu yëgee ni suñu dangay ëgsi na ci mbooloo mi comme kàddu yi ñu waxoon ni nan ko njott na ñu bëggoon it toog ci wetam muy wax benn par benn ñu ko jot li ngir ak ak lënt dañ caa am ndax doon na kàddu yoo xam ni kàddu yéene yoo xam ni xëy na dañ ko bëgg a waxe aw làmmiñam ñun duñ ko mën a defe noonu waaye wax yoo xamante ni dafa jóge ci àqal soo ko déggee xam ko te lépp bi yéen ci nag gi nag la si mudi karaa waxoon moom moom laa ciy wax su mudi karaa dafa waxoon ne moom bu santoon mbeng wala mu sant joxum fa ci lay gën a jekkoo dëgg-dëgg ni mu bëgg ak sëñ Tuubaa waaye sant gi Mbàkke da ko xaw a euh, da koy empêché souvent pour muy wax mu ciy wax moo tax bu santoon Mbàkke wala joxum fa lay gën a am sañ-sañ te li mu bëgg a wax ñu téye ko Sëñ Tuubaa. léegi nag waxuma ñu sant si la doon sëti Sëñ ci la bas waaye ñun ñoo xam ne yàlla dañoo boole ñoom ñu dëkk ci dëkk bi fi yeewoo te ay taalibe dañuy mal placé sax dëgg dëgg dëgg. ci wax ci ci la ak wax ci ñoom ñii. waaye nag léeg-léeg nit ñi di wax wax yoo xam ne nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. bu dëkk bi rek duñ fi dëkk la wala danoo doon ay mbir jënd maanaam ku am ndimbalu suñu borom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. mooy def comme ni mu bëggee def maanaam yor daraja ju àdduna wala nga yor kilifteefu àdduna di fi teew comme ni mu fi teewee wala nga doon kilifa diine ba noppi di fi ñëw comme ni fi yenn kilifa yi diine yi di ñëw mm. ndax kenn umpalewul ne Sëriñ Muntaxa ñëw na ci lëg yi tegu ci wa ñetti weer doon xaj wut Sëriñ Tuubaa Sëriñ Saaliw moom mu ko tudd wax na ni bi mu jógee ci euh, euh, daara ji na ma ko yàlla jéggal jàng ba noppi Sëriñ Muusaa ci lëg yi la ko njëkk a yàlla xam nga wala boole ko ak suñu laamee mi nga xamante ni mooy waajur si mag ni ko soo demee na la nuyu la ak waa gox ba ñu xam ne ni kii doom yi euh, sëñ bi la hmm. ci gàttal rek ci tënk mu doon dëkk boo xamante ni dëkk bu jar teew la comme nii mambala nag suñ mambala dafa am lu xewoon ginnaawu sëñ baara waaye sëñ Tuubaa dafa am lu wax dañ sama tey bi ne daa yàccaat sama démb moo tax bi sëñ Baara demee ak jaaxle am na ci ñëpp waaye mën taam ndax lan moo tax mooy sëñ Baara bi mu fi jógee rek foofu moom maam Balla waaye sëñ seexoon sëñ mag ak siise sëñ moom moo bàyyi mu silla ak sëñ moom sëñ Ibra ak sëñ Baaram sëñ Ibra kenn ku ci nekk da ngaa am pas-pasu bisu sëñ Baara bi bu dikkee nga taxawee ba tax na day mel ni kon nam daan mel maanaam day mel junne ndax lan moo tax junne ni ne ci ñoom ñooñu moo ne ci bàyyi jib taw ne ci bàyyi sàmbatin ne ci ku ne ci def ci moom rek mm-hmm. da ngay fay si bor waaye nga desiwu tey waxi dëgg la joo ne ku ko dégg tey nitu diina mbaa ngay nitu nguur te yow fi xam nga li may wax ne sëñ Maam Balla wax ni ñu ngi lay sant te di la ñaanal ci barke Seexul Xadiim barke sëñ ci la tafsir ñaan gi nag tey ji am na luñ ci gàll loo xamante ne ni ci ñaar la nekk seen kaw mooy si seexum suñu mën ak suñu sawaat moom moo ko ak seen sujet bi ak seen nga xamante ne ñoom la yàlla dogal ma ngay fekk leen neel dafa bëgg ngeen dogal ko ñaanal ko lu fi jógee moom moo xam nag lu pas-pasam toll ak bëgg-bëggam ak la muy yéne mm-hmm. waye ak lu mal a toll lu reey réeree ci loxo suñu borom la nek te it nee na ci loo lu mu xam ci yéen loo xam du ko wax mm-hmm. bu fi jige bunt bu mu fëgg rek yalla ubbee mm-hmm. te bis bu ubbi ko neena mi ngi ñaan mu and ko mbolam nit ñi fi teew ñep tay yalla jur ay ndjay ci barke borom ci la mooy siñ mën a mii damay wax ni wax ci mom léeg-léeg day xawa gaaw ndax la mën a wax wax nga ni bu tax waaye jàngi ci lay daaw yi mhm. booba defe naa kon nim fi toog toog bu ko fi woon mhm. da cee liggéey liggéey boo xam ne doxalin woo xam ne dañ ci biir dëkk bi mhm. waxuma la siñ Maam Balla ak siñ Cheikh mais waaye seen rakk yi gën a dox na ba ci ñoom nuyu leen waxtaan ak ñoom saafante ñu war leen yéene ju mu am ci gox loolu ca ba fi suñu mat di jógee sax la ñu daje ma ne ko ah sëñ bi fii de bari na euh, Euh, nit ñu nguur yi fi daan ñëw sama baay moom wax ni Senghor bi fi ñëw fi la ko fekk sama baay moom la ko wax te man Macky Sall bi ñu dëkk fi am fekk fekkaan nga la waaye dama wax ni nit ñu nguur yi léeg-léeg bu ñu wut dara dañuy ñëw ci la waaye buñ ko amee léeg-léeg pour ñu gisaat leen fi day jafe te booba nekkagul mel moom man vidéo bi mi nga Cheikh Faye mu ne ma bu soobee yàlla du demee noonu te ba ma ko waxee xaw gëm naa ko. ndax ñun jànguñu waaye nag dana yore ci jàng xam nañ li nit ki wax tam ne ci moom ak li nekkul ci moom. mel na ni kon kàddu boobu moom la waxoon tey jii. Mm-hmm. moom la dëggal si ak ñu mu àndal. dëgg la loolu nga xam ne suñu mambaale ñaanal na la ko. Mm-hmm. ñaanal leen ko seen nañ si Cheikh mais dana ko dogal. Mm-hmm. am na ci loo xamante ni yéen ci lay dépendre. ndax bëri ko téer nañ ci dugalee da nga cay niile. ci mbir yi de képp ku fi dugg gis li fi xew gis nañu am nga xam li war a am ci kër yi diine yëpp nga am pas-pasu ci sa xol doo ko wax kenn. Hmm. lépp lu am ci kër wi ne am nga pas-pasu ko fi. Hmm. di nga def ba defaraale ñeneen man maa wax ci te nag lu si jàmbu la xam ko yal na yàlla nangu ñaane ñi ñaan barke borom doo barke sëñ ci a ci am ko yàlla jàppale yàlla ñi nga àndal yëpp sëñ Mamba la comme ni ñu ko waxee na kaddu ba si mm. ak nga def toof ak ba sëñ mm. moo dem yoonu seen morom ak Macky Sall daal yàlla na ci seen waaw sama sëriñ mm. Fall njaay sila njaay bala nga adale masara ñaari ba ki maam balla suñ tuubaay waxam du ni te lu ma laal aduna ndax digganteem mak yalla da do xufalul yalla ba mu jógee jaddu deppul aduna ko fa fekk mu teral la ci suñ baara kenn du ko baara lu bari mu lu bari bari sàqa ba bar ko ku jàq baara lay la da toppul won soq sakkat ko fa te na xew ba Mabala, balla ku balu. day ballu ñu tudde la balla muy balloo ji di kàdd ga fa tuuma suñ tuba waxoon ne sama tan, sama yoon wi am tànk ginnaaw ci yow laa ko gën ku ñëw ci bunt bii gis dàll yi ni ngi leen dalal te ki ki tax ñu dalal dàll yi gën leen a dal ba man leen a dalal la suñ tuba daj ba dajale ko te dajale dara ba dajeeg yàlla ku mu da defar la loola la suñ a daj ba dajaleen la nit ñi di fi daje di dajale la ñu yor di la ko jox yokk yàqoo ko da nga koo yokk te suñ tuubaa ne ku bëgg te yokk ku yàq sama la waaye ko ñu ku ko làq ma yokk la suñ masi la ngaar yi di taali dul seex nan ko jox njukkal bàyyi ba fa mu faatoo la jublu Touba jiital ci la dikkoon ko nag waa Touba waa ci lay teg ndawal fa yàlla kon buñ tegoon ndawal ga rek ñoo si ñeex ma waaw suñu suñu Abdou Khadir amut ak mbooy suñu Abdoulaye amu ko sa rek am ak mbooy te te du mbooy boo xam ne ab xaaxaam da caa ne de mbooy ga muuraakeem nen la mu jaxasoog nettatoo ginnaaw ku ko da nga yow fii nga toog tonkoo te gaa yaa ngi togg te tonk bi yow da koo doon ba pare doon ko waaye ba nga ko doon nga ko doonoon bi nga ko doon nag ñu doonal la amoo ci noonu te nooy na foofu nga say rakk màggal nga say bàyyi xam nga li ci baa xam nga li ci bàmmeel xam nga li ci bàmba te bawal nga dëkk te ba nga lu bon te mosoo koo def may yàlla doo ko moye ndax may yàlla ku ko moye ñàkk ngay point silla ngi yoon wi daal seen jaar ca Mamour Anta Sali Mamour Anta Sali seli yoon wa jox ko Serigne Saliou muy salon Serigne Bamba mu soloon ni ci salon bi ba kenn du noo saloo paar mu teg ni ci tipaar ak Bamba ba kenn du noo waar nga taxoo Serigne Mountakha mu taxamti ku taxal la Serigne Touba nga taxal ko wàccu la adamara biya bina